salaamaaleykum chers amis téléspectateurs de Light TV euh, tey jii ni ngeen ko gisee pratiquement ñu ngi fii ci Pikine euh, nekk Pikine euh, à proximité du terrain de de la Croix-Rouge ñëwoon fi assister li nga xamante ni moo nekk élan de solidarité bi nga xamante ni ay jeunes yu dëkk Pikine ñoo ko war a amal lu ñuy def rek mooy actuellement maa ngi nii toog ak kenn si ñoom dañ koy bàyyi rek mu nuyoo ak waa Sénégal nuyoo ak waa àdduna comme ça ñu mën a dugg tuuti ci waxtaan bi maa ngi tudd Oumou Sy nekk membre élan de solidarité euh, Oumou Sy euh, seen euh, kii bi bëggoon nañ nga waxtaan si ak ñun tuuti naka la demee waa élan mhm. lu yàgg la mhm. xam nga ndax dañoo àndandoo ñi dañuy ànd depuis ba ñuy xale ok dañuy ànd depuis ba ñuy xale mhm. léegi su ñuy àndandoo noonu suñu doon gisee da doon metti léegi sa kor gi nii samedi jotee dañuy def ñun suñu ñu ñuy ànd ñu diviser en quatre ou bien en trois mhm. groupe chaque ñu ay fenn mhm. toog waxtaan def fa mhm. ndogu fu ñu paree ku nekk lu ma am cinq cent ba jëm kaw kon li nga am ñu dajale ko xool koñ bi koo xam ne soxla na ko ñu dem jox ko par la suite ñuy def noon di def noon ay at di domb ñu jékki-jékki rek kenn suñu ñu pourquoi lii ñu ko génnee rëyal ko xam nga daal di def gay ay ñun fa la ñuy loolu ah ñun nga xam ne liggéey ñu dañuy taqale rek jamono googu ñun ñu ngi taqale bu mm-hmm. nekkee ngi taqale ñeen ñi ñi ngi liggéey ñeen ngi taqale mm-hmm. gaay na ah nañ jug rek xam nga dem seet suñu parents yi ak ñu mm-hmm. ñu baax ñi si koñ bi ñu jàppale ñu gaay loolu dina metti de xam nga rek nit parce que jóg di ñaan dafa metti dañuy daal di jóg ñu fëgg suñu waa koñ yi ñëpp suñu parents yi suñu xarit parents yi ku ñu xam rek ñu daal di dem fëgg la daal di génne poos lu ci nekk daal ñëw def première année muy 2016 ci lañ njëkk a def ñi daal génne en 28 jox leen kon mën nañu wax ni lii actuellement yéen a seen deuxième édition troisième édition ok si troisième édition mhm. deuxième édition bi mhm. ñu def 53 ok bii mooy troisième édition ñu fas def 83 ok waaw leen lépp nag ci ndimbalu nit ñi. mais nag suñu ministre. Pape Gorgui Ndong. de la jeunesse. Mhm. nekk suñu maire maire Pikine Ouest. Mhm. parce que peut mu nax ne fi lu fii kii yëpp. daanaka lépp moo moo fi def doom daal. Mhm. suñu parents yi doon jàppale ñu ngi doon jàppale. Euh, mois de ramadan bi ndax dafa am yeneen actes yoo xamante ne da amal. waaw waaw si dañuy toog am suñu keesu bopp. boo nekkee si koñ bi xam nga. yenn saa yi nit ñëw am facture am. Mhm. am euh, am ordonnance am daal. mënu mhm. ci yenn saa gi mu ñëw wax ak ñun. Mhm. ñu génne ko nanga jox ko. si sutura. yenn saa am na daara bu nekk fii. ñu demoon yóbbu fa ay bassan may xale ay téere. détergent yeeg yooyu yëpp ñu def ko. yemuñu si kii peut-être bii moo nekk bu rëy boo xamante ne day génne ci mois de ramadan bi. mais dañuy def social suuf. waaw social suuf parce que li tax ñuy génnee bii ndax ñun dañuy dimbali ñu dañuy cotiser mais ñu ñuy dimbali mooy ëpp kon ñu la ñuy dugal moo ñu génnee ko ëpp si suuf la ñuy def mhm. Mhm. voilà ndax loolu euh, maire commune bi maanaam mi ngi leen siy fekk si ah moo def li moom moo nekk Pape Pape Gorgui Ndong Pape Gorgui mooy ministre de la jeunesse mhm. dama ne loxo moo saf saf mais mais fii Pape Gorgui euh, c'est maire de la commune de Pikine Ouest moo nekk suñu moo nekk suñu maire de la commune de Ouest moo fi nekk ba pare depuis daaw ba léegi parce que daaw léegi boo xamante ne moom lañ ñu boole ay nit boole may seexu yaale Moussa ak Biram mhm. ñoo ñu boole Pape Gorgui Ndong mhm. Pape boobu si semaine une semaine la ñu boole avant événement daaw mhm. mu def ñu may ñu lu bëri ren nag mu ñëw def loo xamante ne ñu dañoo toog sax naan di xoolaat suñu doon parce que def na loo xam ne dafa kii suñu sut suñu njort daal waaw voilà ñu gis que ni chaque année euh, gis nga ni association bi dafay li nga xamante ni mooy social bi dafay yokk ndax euh, ñi ngi début débuté fàttali ma tuuti euh, chiffre bi. 28 28. dem 53 euh, deuxième année bi ñu dem 53. tey jii boo xoolee ñu ngi nekk ci li nga xam ne mooy 88. mu nekk loo xamante ni mën nañ wax ni réussite rek lañ si gis. voilà soxna si lu ñuy def rek booy dañ lay bàyyi bala ngay daaneel nga wax sa dernier mot nga lancer message ñi nga xamante ni mooy la jeunesse pikinoise. waaw xam nga lii ñun dañoo jug rek. Mhm. parce que ñun dañoo dëkk dañoo xamante. Mhm. ñun suñu parents yi bëgg nañ ñun ñi sax suñu kër mu nekk fa mais ginaa ñun suñu kër yi mën nañ am dem jënd boutique ba wala mi seen bii kër ñi dem xool ñoo xamante ne peut-être loolu day métti ñoom d'une part moo tax ñu génnee leen jox leen ko mais kii lii ku nekk bëgg na mu nekk sa bii kër même ñun ñi di ko joxe mais dañoo xool ñoo xamante ne ñun ñoo leen tane tuuti ñu jox leen ko ñi nga remercier ñëpp nag ñëpp ñu si jàpp parce que dañuy def ay carte bakkeeru di jaay képp ku ci dugal dërëmam remercier nañ ko waaye nag remercier maay spécial bu ngandee ngandee ngandee may parce que luy waay njaat luy lépp lu fi kii moom la ndax moom la affaire bi daal moom la ñëpp man tamit maa ngi ne kii ñu ñu doon jàppale depuis première édition ba troisième édition ma wax bu ñu bày seen loxo mukk parce que ñoom ñoo ñu jàppale ba fii bu ci kenn bàyyi loxom nañ continuer rek bu ci kenn bàyyi parce que ñun loolu rek lañ am lool rek lañ am depuis leen kii maa ngi sant yàlla bu baax di gërëm daa yàlla nañ ci yàlla def ñuy continuer muy dem di law di law di law di law ba nga xamante ne foo la ñëwee bayal ba fee lañ leen teg mhm. duñ fi bañ a xat incha ngi lay remercier jërëjëf merci merci beaucoup voilà sëñ bi baal ñu nga rappelé ñu tur bi nga xam ne ñoo nekk di la seetaan. maa ngi tudd Alassane Faye. Mhm. Alassane Faye euh, yow buggoon na nga xam lan ngay occupé ci li nga xam ne mooy association bi. man maay chargé de la com quoi chargé la communication. Mhm. laa nekk ci association bi quoi. Mhm. voilà euh, bëggoon nañ aussi nga ñëwoon ñu si li nga xamante ni mooy dons yi muy élan de solidarité ñu gis ni yaa ngi nekk yéen a ngi nekk ci seen troisième édition euh, ndax nekkoon na loo xamante ni sa euh, a été facile à réaliser. waaw waaw mais jafe na nag jafe na nag yombul quoi. Mhm. parce que ñun ñi di wax ak yow. amuñu amuñu kattan boobu amuñu doole boobu ñu bëgg a defee suñu suñu suñu boobu ñu amoon koo mhm. mais mais grace à des par mhm. ak suñu parents yi aussi. Mhm. n'empêche aussi ñun tamit ci biir loolu yëpp ñun chaque année dañuy cotiser quoi chaque mhm. année dañuy balaa événement bi di ñëw mhm. au ku nekk ni la ni la ni la benn cinquante mille boo xam ne dugal nga ko ci keesu association bi mhm. ou vingt cinq mille ou bien trente mille quoi pour doole yi bokkul mais ñun suñu dërëm da moo ciy jiitu balaa aide di ñëw nag mais aide yi nag suñuy partenaire la ñoo xam ne ah ñoom social la nga leen tax a xam ne xale yi kat ñuy jublu nii jar nañoo jàppale ñu jàppale ñu loolu moo tax egg fi ñu egg tey. ok est-ce que ay euh, yenn autorités yi euh, en dehors euh, du ministre de la jeunesse yéen a ngi leen di côtoyer est-ce que ñoom aussi ñu ngi leen di fekk si ci li nga xamante ni mooy bien bienfaisance yi nga xam ne yéen a ngi nekk di ko amal. waaw loolu moom pour dire vrai pour être franche. Mhm. yenn autorités yi moom ba nit gisuñu leen ko. am na ñu ñu ci gis suñu deuxième édition. mais troisième édition bi gisuñu si ñu bëri. waaw ministre bi daal moom moo ñu taxaw jàppale parce que moom bokkoon na ci deuxième édition bi. deuxième édition bi bañ demee wax ko ko dafa ñu ne ah, yéen li ngeen di def nii du pour yéen. man maa ko def. parce que boobu du woon sax ministre de la jeunesse ministre conseiller la woon. en plus nekk maire fële Pikine. léegi mu ne ma kon que yéen di def pour sama gox mhm. man maa leen war lii man maa ko waroon def kon que da ngeen koy def dama leen di jàppale mu jàppale ñu ba suñu mhm. bi yàlla def ko mu nekk ministre de mhm. fit daal ni euh, waxtu bi xaw nañu xoj parce que yaakaar naa dañuy dem euh, rejoindre léegi imam yi pour euh, remise de dons yi lu ñuy def rek mooy dañ lay bàyyi nga lancer message à l'endroit des autorités pikinois comme ça pour les prochaines échéances à venir waaw waaw loolu moom xam naa ne dañ ko def dañ ko def fii sax dañ ko def après. Mhm. parce que am na ñu bëri ñoo xam ne peut-être dañu naan booy yegg si wuñ si ñun. Mhm. mais waruñoo xaar ba ñuy yegg si ñoom. Mhm. parce que am na loo xam ne su tokkee sa nopp rek xam ne ñii lu baax rek leen tax a jóg. waaw war nga jóg balaa ñoom ñuy ñëw si yow. defe naa loolu mooy yoon ñun neewuñu fi lu dul jàppale. communauté bi mhm. ñu neew ñu fi lu dul def social mhm. loolu si loolu lañ yàlla xiir yàlla mënoon nañu xiir ci leneen mhm. mais dafa ñu ko waaw ah, alhamdulilah di sant yàlla di sant suñuy parents parce que peut-être ñooñu tedd si loolu quoi di leen wax nañ ñëw jàppale ñu ñun ay ndaw lañu bëgg jàppale suñu gox dañuy ñëw taxaw ñu waaw waaw di sant yàlla rek di sant gars yëpp ah, parce que affaire yombul quoi yaa ma a xam affaire moom dara yombul si àdduna surtout nga fii un mois wala deux mois avant koor gi di ñëw mhm. lan naan man bu leen ma fàtte ngeen bëgg a boole ma seen affaire yi mhm. xam nga dafa metti mhm. dafa metti si ñun parce que sas la te yaakaar la yaakaar dafa foor mais ñun ñoo ciy def lu ñu mën yàlla ci du ñu taxaw nag yàlla ji moom ñuy taxaw ñu ngi ko koy sant di ko gërëm merci